alarba yam ak juroom ñent fan ci wéru janvier atum 2019 soxna mam xari Mbàkke doxantu won fe ci marché bu garbu ndaw di ci abi toilette yi nga xamné mom la defal wa garbu ndaw ñu ma sa teewlu kat yi nga xamné mo fa ruusee ngeerum rek la ñam ci sonna soxna ndax defal na lu ñu jafé ndax sonnon nañ lool kun sa talal sunu loxo dañuy jëppee caméra te xamuñu luñ ci djubloon ngir leggel sëñ touba nga ñoo nak jàppale nu ba leggel luñ bëggoon bëggoon leggel liggéeyal sëñ Tuubaa nga motul nu kon nag Mbacke noo ngi lay ñaanal yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla na nga fi yàgg te wér yàgg ak rek lañ lay ñaanal waaye tedd ngay àddina ak yërmande àllaaxira moom wax kon dañ la koy ñaanal ndax Mamor Dieng mi sant nañ ko ndax moo nu boole yow ndax xamuma xamante wuñ te Mamor mi ngodok dox lépp ba lépp kon colet kon nag yàlla na nga fi yàgg dañoo réccu liñ ko yéex giñ ko koy yéex a jox moom la ñu rëcc waaye bu fekkoon ne comme moom li mu ko yor moo tagul un waaye gis nañ seen bopp ku ci gisul boppam na yëkkati loxo ci yor gi ko yor nga xamante ne gerte gi gis nañ seen bopp mu xeex ko mu jugee Touba dem Sonacos mu xeex ko ba mu ñëw te fu mu toll nii mi ngi ci xeexaat ko pour mu ñëwaat suñu loxo kon loolu suñu contentement. programme yi mu naan ci yu mel nii ak yu ak yeneen bari na. marché Ocass ak marché Jannatoog bépp marché boo xam ne mi ngi ci dëkk bii di tuba ak lu génn ci dëkk bi incha allahu taala fas yéene dafaa dem taxawal fa lu mel nii leneen lu mu laajit lu dul lu mel nit fas yéene faa taxaw ngir jàppale leen ko ndax moom yàllaa ko ñor ak yonent bi ak dëkk bi yi nga xam ne maamam ko sanc te ñun ñëpp ñu ñëw fi ngir jëmmi maamam ji Serigne